alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala majmaci shuunihi wa xaqiqati kunhi sirrihi sayyidina muhammadin bahjatil kawni wa diyaa'ihi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 maa ngi leen di boole ci juróomi baat yi ñu yàlla boole di juróomi baat yoo xam ne jamono mënut koo yàggee ba xewil ko bëri luñ koy joxante mënut koo bëree ba sàppil ko ñu ci biir ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di dellusiwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon yow rekk ci wàllu miraas waxoon naa ñi nga xamee ne nii duñu donn dañ leen tere pour ñu donn ñooña waxoon naa la ca ku ñu moom du donn muy li ñuy tuddee arriqu kooka du donn te ñàkka donnoom nga timit yonentu bee ko jàngale sallallahu alayhi wa waxoon naa la timit ku rey ki nga war a donn su fekkee danga ko rey reyab tay doo donn ca diye ja doo donn ca alal ja mu mel ni bàyyi ju reyoon doomam danga dem tool du ma dem tool rek mu jël fetal ga tiire ko mu dee sariya nee na du donn ca diye ja du donn ca alali doom ja donte doom ja milliardaire la naka noonu doom ju ray baayam ray ba rayab pay la du donnu ca alal ja du donnu ca diye ja buy rayam njuumte nag dana donnu ca alal jim bàyyi ci ku mu ci ñoom ñaar waaye du donnu ca diye jëm koy diya kon yonentoo waxoon loolu sallallahu alayhi wa sallama ci hadis boobu abi hurayrata moo ko solo mu ne lay laysa lil qaatili min al miraathi shay'un noonu rek la ko yontu bi waxee bu ko defee boroom xam-xam yi càmbar ko génne ca yooya ma génne la ca buy tay ak buy njuumte benn bu ki nekk luy xatte ba waaye ala kulli haal la bopp daal daarul qutni yu génne na ko imaamu bayhaqi yu na ko abu daawuda génnee na ko albani yu wéral na tamit hadis boobu yonentu bi ne laysa lil qaatili min miraasi shay'un naka noonu tamit waxoon naa la koo ak diine muy jullit nga nekk leneen lu dul jullit yéen ñaar kenn du ca donnante ndax yoonu dafa bokk ci sartaay ndonu bokku diine waaye ñu bokkul diine kenn du ca doonu sa morom yonentoo ko wax moo tax mu ne laa yarisul muslimul kaafira walal kaafirul muslima xadis la bopp bu yu moo ko solo mu nekk xadis boo xam ne bu wér a wér la naka noonu timit waxoon naa la ko bokk na ci ni ngi ndonu ku murtat ku murtatut ku murtat génn ci diine ji yàlla nañ ci yàlla musal kooka tuñ ko donn xalalam jee dañ koy yóbbu bayti maal yooyu yëpp dama ciy jaaral rekk waaye ñi du toon donn wax naa la ko bépp sëy boo xamee ne nii ñëpp a dëppoo ca ñàkk wér ga ba dee am duñ donante buy sëy boo xam ne boroom xam-xame dañ caa wuutee lu mel ni sa yëpp contrant wala lu mel ni sa yëpp ko xarmal wala lu mel ni ku nekk kuñ moom di ab jaam maye sa doom nekk kilifteef ga yooye sëy fuqaawu dañ cee wuutee ñi ne mën na ñi ne mënut waaye ala kulli xaal su asuñ ko takkee tasuñ ko ba dee am danañ donante ndonu yooya nag limaloon naa la ca fanweer yoo xam ne ku dee baleen ñàkkooku la donu boo ko farañ fàncee ñoom ñëpp danañ mat fanweer fukk ñëpp jigéen lañu waxoon naa la ko ala kulli xaal ñaar fukk yëpp góor lañu su ma ne nag ku dee xam nga fanweer ñu lay donnu te kiwut ne fanweer yëpp ñoo lay donoo ndoor fanweer yépp yëpp buñ fa dajee woon tey mën naa la wax ne juróom rekk ñooy donn bu nit ki dee woon tey fanweer yi ma la limaloon ñëpp dajee fi yaay daal moom dana donn kenn mënu ko tere donn baay dana donn kenn mënu ko tere donnu ndax ñoom ñaar ñii ñoo sos ki ki tabax alal ji naka noonu tamit bu dee bàyyi doom moom mi bàyyi na ndey bàyyi bàyyi bàyyi doom doom ja góor la jigéen la góor ak jigéen la kenn mun leen tere doon ah ka tegu nag mooy ñaari way dencante yi ki dee bu dee jigéen la jëkkër lay bàyyi faw mu doon ko ki dee bu dee góor la jabar lay bàyyi faw mu doon ko juróom ñii lu nit bari bëri alal xalaa kulli xaal ak loo bari bari njaboot mënoo tere ñii doon la kon fanweeri yëpp bu ñu fa dajee juróom yi dong ñooy doon. juróom yi ba ñuy doon wax naa la ñay doon ca cër ñay doon ca lu ñuy tuddee nisif limaloon naa la ko doom ju jigéen ca la bokk bu fi neexee moom kenn mbokk mu moo bokk ak ndey ak baay ca la bokk mbokk mu jigéen moo bokk ak baay na fekk nag ku mu ci moom kenn nekk fa sët bu jigéen bu bàyyi ko ci doom ju góor bu fa neexee moom kenn nisif lay donn naka noonu tamit jëkkër bu doom amut nisif lay donn juróom ñile ñooy ñi doonu nisif waxoon naa la ko waxoon naa la ñee doonu sumun ñoom moo ci gën a yomb ñee doonu sumun yépp kenn rekk la te mooy jabar buy doonu jëkkëram fekk doom am moo kam benn doom la ñaar la ñett la ñeent la jigéen lañ wala jigéen ki góor lañ su mun la ñu doon su la cee doon rek dem bu fekkee jenn jabar nga bàyyi góor ak seen si njabar nga dee nga sa benn sumun booba ki sa alal sa jenn jabar jàkku moom su fekkee ne ñeenti jabar nga fi bàyyi ñoom ñeenti ñëpp lañuy boolee benn sumun ba yooyu yëpp waxoon naa la ko waaye eh, waxoon naa la timit ñi nga xam ne ñooy doon sudus ñooy doonu sudus baay ca la bokk ah su doom amee ñooy doonu sudus yaay ca la bokk bu doom amee ñooy doonu sudus mbokk ci wàllu ndey yaay rekk moo leen boole mu sant Njaay nga sant Njaay man ngeen sax bokk sant Siise ndax man naa am ah, maga ko doon denc wala rakk dee kum bokk sant dencaat ko kon ñoo bokk yi sant waaye bokkuñu baay waaye ala kulli haal ñoo bokk yaay su boobaa timit waxoon naa la ko kooka sudus lay donnu buy kenn moo xam góor la ak jigéen ñoo yem foofa buñ xumbee ñi boole leen euh, suluf ba moom la alquran ne fahum surakaa'u fii sulusi loolu lépp nag min ba'di wasiyatin kon yooyu yëpp farañ-fànceeloon naa la ko ca wàllu ñay doon rubox ba tabaarakalaaw ak ñay doon sudus ba ak ñay doon sulusaani ba ak ñay doon nisif ba loolu lépp ñu koy tënkee ci miraas cër ya ñu koy doon mooy hëba a badasa hëba a badasa loola mooy tënk bi loola mooy tënk bi bu ne la nag hal kubéer googu mi ngi ci namm ñey doon nisif juróom lañ jëkkër mbokk ci wàllu ndey ak baay buy kenn mbokk ci wàllu baay buy kenn sët bu jigéen bu bàyyeekoo ci doom ju góor buy kenn doom ju jigéen yoo xam ne wala maanaam bintu sul bi la yaa ko jur ci sa ndigg te muy kenn ñuy ñooy donnu maanaam dañuy tuddee nisif muy maanaam bintu sul bi bintul ibni al uxtu lil abbi al uxtu shaqiqa azawju su ko defee kon nag maanaam ñooñu ñooy doonu nisif saw ba nag na fekk ba muy doonu nisif doom tabaarakalaaw ñàkk am waaye bu doom amee rek fay toxalu kooku mooy xal kubéer gi boo jëlee baag gi moo lay jox tabaarakalaahu ñi nga xam ne ñooy doon ruboo ñooy doon ruboo ñaar rekk lañ mooy jëkkër tabaarakallaahu euh, jabar joo xame jëkkër joo xame ne maanaam dafay doon ci jabar ja te fekk naa lu ñuy tuddee maanaam doom am na kon rubox ba lay donn naka noonu jabar juy doon jëkkër ja fekk naa doom amut moom tamit tabaarakallaahu rubox ba lay donn bu doom xamee mu door a dem ca sumun ba kon ñaar ñii rek ñoo koy doon ñaari way dencante su ko defee kooku mooy mooy maam baagi hëbba nga jël hamsa gi moo la jox sumun moo ci gën a yomb moom kenn rek la mooy jabar du jëkkër ja dee fekk doom am na ca moom mu ñëw di ko donnu si su boobaa sumun lay donnu ah, su ko defee tamit nga jël euh, lu ñuy tuddee euh, maanaam sulus ba moom tamit mooy baaga ñay doonu sunus ñay doonu maanaam euh, la ñay doonu maanaam sulus ba te mooy yaay joo xamee ne nii dafay donn ca doom ja doom ji dee fekk doom jooje muy donn amul doom bàyyiwul fi ñaari mbokk jëm kaw su boobaa sulus la yaay di donn su fekkee ne nag dafa dee bàyyi doom mbaa mu bàyyi lu mat ñaari mbokk ci wàllu gum mën a doon ci ndey ak baay mbaa ci baay mbaa ci ndey su boobaa dafay toxalu ci sulus jëm ca sudus waaye bu loolu amul rek day des maanaam ci sulus bi naka noonu ku dee bàyyi mbokk yoo xam ne yaay rek moo leen boole yéen a bokk ndey ca mbokk yooya kenn dee ca kon kooka tamit sulus lañuy ñu kon ñaar ñi ñoo koy doon mooy baagi moo tax alquran yi fahum shurakaawu fii sulusi eh, deel ga nag mooy lu ñuy tuddee sulusaani moom jàppal ne ñeenta koy donu ku dee bàyyi ñaari doom yu jigéen yu yu ndigg jëm kaw ñooy mokk saani ba mooy buñ xaajee alal ji ñetti xaaj ñaar ya bu doon ñetti million ñaari million ya su boobaa sa ñaari doom yu jigéen yii comme xamuñ càmmeñ moom lañ leen di jox te ñu dem mënuñoo jeexal alal wala wala nit ki dee bàyyi ñaari mbokk yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ah su boobaa tamit ñoom ñaar la ñuy boole euh, sulusaani ba tañ dem wala mu dee bàyyi fii. maanaam euh, mu koon su boobaa loolu lay doon wala mu dee bàyyi ñaari mbokk ci wàllu baay jëm kaw kon tamit ñoom ñaar ñooy doonu sulu saani ba wala mu dee bàyyi ñaari ñaari sët yu bàyyee ko ci doom ju góor waaye buñ ñu bàyyee ko ci doom ju jigéen duñ doonu de dañuy bàyyee ko ci doom ju góor su boobaa tamit ñoom ñaar ñooy donnu sulusaani ba bu ñu fa neexee ñoom rek nag waaye ñii bu ñu fi neexee ndoor dañuy xiirante de duñ mën a doonante ñoom ñëpp de waaye daal dee nga bàyyi ñaari doom yoo xam ne yaa leen jur ñuy jigéen ci sa ndigg ñoom rek kon ñoo moom sulusaani ba wala nga dee bàyyi ñaari mbokk yoo bokk ak ak baay eh, ñoo moom sulusaani ba mbaa ngeen bokk baay te ñoom rek ñu nekk fa ñoo moom sulusaani ba wala nga dee bàyyi fi ñaari sët yu bàyyi ko ci doom ju góor ñoom rek ñu nekk fa fekk doom xamut kon su ñoom ñoo moom sulusaani ba ñay doonu kon kooku mooy deel ñeent lañ ñay doonu sulus nag ñoo gën a xumb baaya nga ca bu doom xamee yaaya nga ca bu doom xamee maam ji jur baay ma nga ca maam ju jigéen tabaarakallaahu moom tamit ma nga ca naka noonu tamit mbokk ci wàllu baay su fekkee dafa dajeeg al uxtu shaqiqa li ta dee bàyyi mbokk mu mbokk ak baay bàyyi tamit ma neen mbokk mu mbokk ak ndey ñoom ñaar ñëpp di jigéen kon te kenn ku ne di kenn su boobaa kon a jëlal nisif ba jox ko uxtu shaqiqa ba jël sudus ba jox ko al uxtu lil abi walla mu dee bàyyi ku doomi ndigg moom kenn kon jox ko nisif ba mu dajee fekk bintul ibni mooy sët bu bu jigéen bu bàyyi ko ci doom ju góor nga jël kooka jox ko li ñuy tuddee ala kulli haal mm, maanaam euh, sudus ba ndax wa tanqulul bintu bintab nin ila sudusin misla shaqiqati fi uxtin ala tamila naka noonu tamit wala mu dee bàyyi mbokk mu góor wala mbokk mu jigéen ci wàllu nday rek te kenn la ku ci mën a doon kon sudus ba lañ koy jox tam dem suñ xumbee ñi boole leen euh, sulus ba kon cër yaa ngoog naa la ko ñi koy tënkee haba a hëbaa badasa hëgi mooy ñay donn nisif baa gi mooy ñay donn rubo hamsa gi mooy ñay donn sumun geneen baagi ci tegu mooy ñey doon sulus del ga mooy ñey doon sulusaani racine kooku di juróom benn mooy ñey doon sudus cër ya jeex su ko defee nag damay ñëw ak yow nag ñi nga xam ne ñooy doon ci li ñuy tuddee asable asable mooy ñoo xam ne bu ñu fa neexee ñoom kenn rek jël xalal jël lépp bu ñu fa nekkee kuy xam cër ci ñii ma tudd ñi bàyyi leen bañ jël bu dara desee ñi jël ko bu dara desut ñi perte ndax kuy xaar ndes te dara desut perte nga waaye léeg-léeg nag dana xam ci miraas ñuy xaar ndes mu ñàkk a des ba pare ñu jëlaat cër ya ko boole leen ca mu mel ni eh, tabaarakallaahu li ñu tuddee masalatu ximaariya loolu danaa ca ñëw kon miraas ñaari xaaj rekk la xaaj boo xam ne dafay donn ci cër te wax naa la ko di juróom benn cër ya ca nisif ak su ak sumun ak sulusaaneeg la ca xaju wax naa la tamit ña koy donn am xaaj boo xam ne nag ñoom xamuñ cër dañuy toog rek xaar bu dara desee ñi jël bu dara desut ñi perte xam ñoo xam ne tamit danañ am cër ba pare toog xaar bu dara desee ñi boole kook seen cër ba dem ku mel ni baay bu dajee woon doom bu jigéen bu dara desut nag mu jël cëram booba rek dem na jël sudusam ba dem waaye nag bu dajee doom bu jigéen mën naa jël sudus xaar bu dara desee mu boole ko sudusam ba ñibbi bu dara desut moom tamit mu dem ñibbi comme ni ak maam ya tamit mën na loola kon euh, maanaam kaaj yaa mooy ñay donn ci cër waxoon naa la ko juróom-ñaar lañ mbooleem kuy doon ci cër rekk xam ne dañ la cëral juróom-ñaar ñi mënoo koo génn yaay day doon ci cër waxoon naa la cëram benn muy sulus wala muy sudus bu doom amut mbokk ya limuwuñ mat ñaar jëm kaw jëral yaay nga jox ko sulus tam ñibbi bu dooma xamee mbaa mbokk ya limu jox ko sudus tëm ñi bi kon muy benn ñaareel bi mbokk ci wàllu ndey day doonu ci cër bu fa neexee moom kenn jox ko sudus tëm ñi bi buñ xumbee boole leen sulus ñi séddoo ko góor ak jigéen ñoo ci xem képp tëñ ñi bi jëkkër wax naa la ko bu fa nekkee doom amut jox ko ruboo tam ñibbi su fekkee tabaarakallaahu doom am na jox ko maanaam jo bu fa doom amut jox ko nisif tam ñibbi bu fa doom xamee jox ko ruboo ba tam ñibbi moom tamit jabar ja noona day doon ci cër bu fa nee ah, ñi xool doom xam jox ko sumun tam ñibbi su fekkee doom xamut jox ko ruboo ba tam ñibbi maam mi nga xam ne moo jur yaay maam ju jigéen gi jur yaay naka noonu tamit jox ko sudusam tam ñibbi wala maam ju jigéen gi jur baay jox ko sudusam tam ñibbi waaye nag maam ju góor ji jur moom du donn waaye maam ju góor ji jur baay day donn maam ju jigéen ji jur baay day donn maam ju jigéen ji jur yaay day donn waaye maam ju góor ji jur yaay moom du donn kon maam yooya seen cërëngoog danañ dem nag léeg-léeg maam dajee ab sëtam ne ko ah sa doom a nax nañ boole loolu danaa ca yegsi kon juróom euh, ñaar yii ma limal la mooy boromi cër yii nga xam ne ñoom dañuy donn ci cër te tamit cër rek lañ mën a donn mënuñ caa dool dara buñ ko moo tax ba wax la ba ma la ko waxee nela nañ ko jël te dem ñibbi ñox mënuñoo xaar ci dara xam na koo xamee dana doon ci cër ba pare waaye bu doonoo ci cër mën naa toog xaar mën naa am dara des mu boole ko cëram ba ñibbi waaye juróom-ñaar yi ma tuddal la ñoom cër rek lañ mën a donn te buñ donnoo ki seen cër ya tamit dañuy ñibbi dara mënta desati mooy yaay mbokk ci wàllu ndey jëkkër jabar maam ju jur yaay tey jigéen maam ju jur tabaarakalaaw baay tey jigéen e, juróom-ñaar ñi de ci cër dong la donn te buñ jëlee seen cër buñ xiboo ñibbi mënatuñoo xamati dara wax naa la kenn ku ne lay cëram mu des nag xaaju ñaareel duñ am cër dañuy doon ci assemblée ñoom daal nañ toog ba gaay seddoo boroom cër ya jël ñay jël nisif jël ñay jël ruboox jël ñay jël sumun jël ba ñay jël jëlee nag bañ pare la ca des nag ñoom ñi buub lépp yóbbu bu dara desul nag ñi perte waaye ñaareel ñii ma bëgg tudd ñaareel nag foo leen fekk dara day des ñooñu fukk ak ñaar lañ fukk ñaar ñii ma bëgg laal limal mooy ñoo xamee ne nii dañuy doon ci asable moo tax ñi ma tudd seen cër yëpp déggoo leen ci kooka mooy doom doom ju góor doom ju góor waxu waxuma la fen doo jàng ci alquran fen mbaa ci sunna ñu ne jox leen doom ju góor nangam déedéet doo dégg ñu ne dañ ko jox nisif doo dégg nañ ko jox rubox doo dégg nañ ko jox sumun moom day xaar ala kulli xaal ñey jël buñ jëlee ku mel ni yaay bu jëlee ku mel ni baay jël tabaarakallaahu ku mel ni jabar jël bu ñooñu jëlee la ko des yëpp moom mu jël ko. naka noonu doomi doom muy sët bu góor bu bàyyi ko ci doom ju góor dafa xamee doole dafa xame doole doom bu doom xamul rek moom day taxaw taxawaayu doom moo tax nit ku nekk sa sët bi daanaka sa doom la moo tax nga gis ñu bari fonk seen sët yi am na ci ñoo xam ne sax seen sët ya yu góor ya bàyyi ko ca seen seen doom yu góor ya moo leen gënal seen doom yi bopp yi ndax kat kooka tey boo deexoon xamoo doom mooy doonu sa alal ji. kon ku ci amoon sët booye boo gën koo fonk de yàlla fonk na ko de wàccee na ko ni wàcce waayu doom naka noonu tamit bu sët xamutoon sax sët sëtaat am bu bàyyi ko ci doom ju góor ba tey tamit day doon xalal ji kon ñaar ñii tudd naa leen amuñu cër ñetteel ba mooy mbokk mu góor moo bokk ak ndey ak baay képp koo xam ne yaa ngi am mbokku ngeen bokk ndey ak baay muy góor waxuma la fenn ne lii mooy cëram moom day toog bu gaa yi jëlee ba pare la ci desee mu jël ko kon ko xamoon mbokk moo bokk ak ndey ak baay boo xeboo gën koo téye de sa xalal ji nga nekk fi di ko kor korkoral nay ci bañ ko caa may bañ ko caa sarax bañ ko caa dimbale te fekk yaa ko tene soo dee bàyyi woo doom euh, wala nga bàyyi doom yoo xamee ne nii mënu ñoo jeexal alal yu mel ni ki jigéen bu ñoo ngi jëlee pare rek moom moo jël lépp kon ko am doob ko am mbokk rawatina ngeen bokk ndey ak baay fonk ko topp ko toppatoo ko jàpp ko jàppale ko sa alal jile xam na nooy demee dee xam ñoo fi bàyyi mu xam ca cër te doo ca man dara moo tax nag kon yow mbokk mi timit jàppal sa mbokk mi soo ko tenee dimbale ko loo ko ci mën a dimbalee jàppale ko ci ndax xamaat na boo dee mu donn la xamaat na moom tamit bu dee nga donn ko am na ñooy bayi ñoo xam ne boo leen fi bayee dee sa mbokk mii mooy moom sa alal ji mooy koo bokk ak ndey baay naka noonu tamit koo bokk ak baay tudduma la fenn muy góor ne lii mooy cëram kon doomi bàyyi nañ leen gën a fonk gëñ leen toppatoo xam ne mbokk mënta paase koo bokk ak benn baay ngeen dogoo benn gaño léeg-léeg nga dee bàyyi fi ñoo xamee ne nii même amoo doom tabaarakallaahu amoo amoo mbokk moo bokk ak ndey bàyyi mu góor haa am na ki ñoo xam ne boo leen bàyyiwut sa mbokk mi nga bokkak ak kat mooy doon sa alal ji kon doomi bàyyi nañu jàppalante ci alal ya nañ fonkante nañ jàppante nañu bëggante te xam ne kenn ku nekk sa doomu bàyyi xalalam ja yàlla am na lum la ca waafal ñoo xamee ne ni bu ñu fa néew rek yow doomi bàyyi yaay doonu lépp te kenn mënu ci dara nit tey bu deewoon tey amul ndey amul baay baayam deena yaayam deena amul doom du góor du jigéen amul mbokk mu mbokk ak baay waaye waaye doomi baay jooja nga xam ne baay dong lañ bokk kenn la mooy jël lépp bu fa nee ak ñu xumb ñoo jël lépp ñoom tamit mu jeex ñu góor ña ñu doon ko lépp mu jeex kon doomi baay mooy mbokk kon nañ bàyyi li olof yi wax naan doomi baay doomi bañ wax ju yàqu la te loolu ñu bari gëm nañ ko di ko dund te lu bon lu ñaaw la ñoo ca dem ñu xëpp doole seen doomi bàyyi ñooy seeni noon tabaarakallaahu loola yàlla xamut ko jàngalewut ko nañ def doomu bàyyi bëggante soppante tañ xam ne am nañ ci suñ alal yi cër ñun tamit am nañ ci seen alal yi cër soo dee ñi ma wax bàyyi woo leen sa doomi bàyyi yi mooy doonu sa alal ji su ko defee nga xam ne kon yàlla rek moo ñeme lii naka noonu tamit ku dee bàyyi woo mbokk moo bokk ak bàyyi bàyyi woo mbokk ma bokk ak baay bàyyi woo doom bàyyi woo jabar bàyyi woo ay waajur loo fi bàyyi doomi mbokk koo xam ne yaa ngi moom bokk ak ndey ak baay doomam nga fi bàyyi te muy góor su boobaa mooy doonu sa alal ji kon sax waxatuma sa mbokk mi nga bokk ak ndey ak baay waxatuma ki nga bokk ak baay waaye ñoom ñaar ñi de seen doom ya sax mën na nga doonu sa alal ji dee bàyyi fi doomi mbokk rek moo bokk ak ndey ak baay moo jël sa alal ji lépp wala nga dee bàyyi woo fi kooka ki nga fi bàyyi bàyyi rek ngeen bokk muy euh, mbokk mu góor mu bàyyee ko ci doomi baay ju góor ngeen a bokk benn baay muy góor bàyyi fi doom moom kenn mooy doonu sa alal ji kon loolu jar bàyyi xel bokk na ca fukk ak ñaar ña baay tëx baay tëx mooy ki bokk ak sa baay ndey ak baay nga dee bàyyi woo bàyyi bàyyi woo doom bàyyi woo mbokk bàyyi woo doomi mbok bàyyi woo fi dara su boobaa sa bàyyi tëx bi ne mooy doon doonu sa alal ji moo tax kon nag nit ñi niñ jubook seen bàyyi nañ fexe ñu jubóog ko seen doom yi bàyyi tëx yi de seen alal yooya xam na fa cër bu leen fa yàlla bàyyil ñoom ñoom doom ñoom ñoom bàyyi tëx ya waaye ñu ci bëri tey jubóowuñu koy waxee ma ne sama rakki baay la sama magi baay la dafa may fontoo nangam ak nangam ak nangam yàlla ne sama yoon newu ci sa xalal ji xam na ñoo xam ne boo boo boo dexee baw leen fi rek sa sa sa baay tax bee koy doon waxatuma baay tax sax bu bokk ak sa baay ndey ak baay waaye ak kay baay tax bu bokk ak sa baay baay rek donte bokkuñ ndey baay rek lañ bokk naka noonu boo dee bàyyihoo bàyyi tëx boo bokk ak nday ak baay bàyyihoo ñi ma la njëkkoon a lim ci doom ci soxna ci waajur ci mbokk su boobaa bàyyi tëx bii bokk ak sa baay bàyyi rek mooy doonu sa ji naka noonu waxatuma bàyyi tëx ci wàllu ndey ak baay waxatuma bàyyi tëx sax ci wàllu baay waaye seen doom ya boo fi xamutoon ñii ñëpp ma lim bàyyi fi doomi bàyyi tëx sa doomi bàyyi tëx nga fi bàyyi koo xamee na nii seen baay ñoo bokk ndey baay seen baay yéen a bokk ndey ñoo bokk ndey ak baay kooka kat muy sa doomi baay tëx mooy doonu sa alal ji wala ba bàyyi woo fi kooka koo fi bàyyi mooy baay tëx doomi baay tëx boo xam ne seen baay yi ñoo bokk baay donte bokkuñ ndey ah su boobaa tamit kooku mooy doonu sa alal ji kon fukk ak ñaar ñi de ca alquran ba alquran jeex doo fekk ñi limal leen ni lii lañuy ñuy doo fekk ñu tudd leen ci sudus du ci nisif du ci rubo du ci sulusaani du ci dara ñii ñooy ñoo xam ne dañu toog xaar bu xalal ja desee ñi jël lépp kenn munu ca dara bu ñu fa neexee ñoom kenn jël lépp bu dara desut ñi perte su ko defee kon nag fukk ñaar lañu ki ci jiitu mooy doom ju góor ju bàyyi ko sa ndigg li wala sët bu góor bu bàyyi ko ci doom ju góor lu mu wàcc wàcc bu fa neexee mooy donnu naka noonu mbokk ma bokk ak ndey ak baay muy góor mbaa ngeen bokk baay muy góor wala doomi mbokk moo bokk ak ndey ak baay yaag baay ma bokk ndey ak baay amut waaye doom ci la fa bax moo lay donn wala doomi mbokk moo xam ne baay rek ngeen bokk ah moo lay donn wala sax baay tëx boo xam ne moog sa baay bokk ndey ak baay mu nekk fi moo lay donn wala baay tëx boo xam ne moog sa baay ñoo bokk baay rek moo lay donn wala doomi baay tëx bu bokk sa baay ndey ak baay wala doomi baay tëx boo xam ne mook sa baay ñoo bokk baay fukk ñaar ñile ñooy ñi nga xam xam ne ku dee bàyyi leen ñoom ñii ñi nekk fa bu ñu fa nekkee ñoom kenn jël xaral ja bu ñu fa neexee kuy donn ñi bàyyi ba ñoo ñu jël muy borom cër yi ma la tudd tuddaloon bu ñu jëlee ba pare la ca des lépp ñu ramassé ko waaye bokk na ko tamit ki goreel jaam bi jaam baa ngi nii jaam la woon nga dem te ña ko moom waxanteeg ñoom lu ñu la koy jaayee ñu ne cinq cent mille wala un million nga làmb sa poos jox ko ka ko moomoon ne ko goreel naa la tax ndaw yool bu rëy mën naa tax sax yaa goreel cëram yëpp loxo baag bët yaag nopp yaag tànk yaag karaw ga mën naa waral yàlla tamit goreel sa cër yooyu yëpp ci safara loolu lu am solo la moo tax saxaaba yi doon daw di njëkkalante ci goreel jaam Usmaan lim goreel ci ay jaam kenn xamut nuñ toll. Seyduna Aboubacar noona yonentu moom moo ëppale ñëpp ci lim goreel xat mi mu jaxaj sax goreel na lu mat juróom benn fukki jaam ak ñett mu tolloog xati dundam ba muy tolloog juróom benn fukki xat ak ñett ci dundam lépp mu goreel ko ci ay jaam di xemem loolu nit ñi ñuy goreel jaam ba loo def sax mu ne la demal nga goreel jaam yaa ngi nii yaa xooroon ba digg bëccëg nga nga nga nga nga dog tay ko ñu ne la kafaara ga demal nga goreel jaam mbaa xoor ñaari weer mbaa lexal juróom benn fukki miskin nga toog xamadi ci ñàkk ak yar wax sa jabar wax ju yaruwut di ko nireeleeg sa yaay ñu koy tuddee zihaar ci fuqaaw yi wan sa jabar ne ko yaa ngi mel ni sama waajur am loo ko nireeleeg moom sariya ne da ngaa xamadi sa baat yee ñaaw te yaa yaradiku tey ñu yar la demal nga goreel jaam a ngay dawal oto tayoo ko fal nit ray ko wala ngay sox bala fetal bi di rëbbu cokeer far mu dal ci kaw nit nga ray ko sariya kenn du la rey waaye demal nga joxe diye mbokkam yi. ñi nga rayal da nga leen jox téeméeri gëléem boo ca bàyyee koo demal nga xoor ñaari weer wala nga nga maanaam boole ko nga goreel jaam euh, euh, kafaara ko lu ñaaw lii nga xam ne def nga ko a nga goreel jaam kon nga xam ne kon nit foor na demeet waaye xamul fenn fu lislaam di wax nga def naa nga mën a demal nga nga jëndi jaam nga nga yokku jaam xamul fenn luy wàññeeku nag bu yàggee mu jeex moo tax loo def rek mu ne la ñamaas ñamaas mu ne demal nga goreel jaam waaye amul fenn fu mu ne demal nga nga nga yokk jaam yi luy wàññeeku bu yàggee mu jeex ah moo tax tamit tabaarakallaahu ñi mi xumaa wax na jeex na tàkk de ndax déw ma fépp waaye mën naa wax ne wàññeeku na lool ba jéggi dayo kon lislaam buy wane ne yow mi goreel jaam bi jaam bi dee amul ku ko donn bàyyiwul fi ndey bàyyiwul fi baay bàyyiwul fi mbokk bàyyiwul fi baay tëx bàyyiwul fi doomi baay tëx ñii ñëpp ma limoon bàyyiwul fi kenn yow mi ko gore loon yaay doon waxal ji lépp bu fi bàyyee ñu mënta jeexal alal ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ ñooña jël ba mu des la ca des lépp yow kenn yaa koy jël mi ngi mel ni tey Seydina Aboubacar mi gorol Bilal Bilal génn àdduna amul dara du usul du furoo amul ay mbokk amul dara ka ko goreel mu ngi jël xalal ja lépp foofa tamit ci miraas góor ak jigéen ñoo fa yem képp ka ko goreel buy góor mooy jël lépp ka ko goreel buy jigéen mooy jël lépp kon ci miraas doomu ndey góor ak jigéen a fa yem képp naka noonu ki goreel jaam bi muy góor muy jigéen ñoo fa xem kepp bu ñu fa neexee lépp la ñuy jël doomu nday bu ñu fa neexee di kenn su sudus góor ak jigéen a ca xem suñ xumbee sulus sulus lañ leen di boole waaye bu ñu leen koy boole te fu mu sorakaaw fii sulusi bu ñu koy séddoo xamul góor ñaar jigéen benn ñëpp a ca xem kepp bu ma ne doomu nday nag mooy koo xam ne yaayee leen boole ñaareel koo ko fekkee yaayam dafa sëy ñaari yoon benn fa njëkk a baayam génn àdduna keneen donn ko mën naa am ki ko donn bokkuñ ak sant mbaa beneen jàmbur donn ko bokkuñ sant nga xam ne ñoom ñoo bokk ndey waaye nag bokkuñ baay ñooñu bu ca kenn dee yeneen mbokk yee ñëw di ko donn si bu fekkee kenn rek la moom ma koy donn si nañ ko jox sudus ba tam ñibbi su fekkee xumb nañ góor ak jigéen wala ay góor ak kese wala ay jigéeni kese dañ leen boole sulus ba ñu séddoo ko foofa nag bu ñuy góor ak jigéen buñ koy séddoo xamut ëppalante ñëpp cay xem kepp kon ñii ñooy ñuy doon donn ci asable di fukk ñaar su ma ne xasable nag mooy koo xam ne alquran cëralut ko yonantu bi cëralut ko fay taxaw fale xaar bu gaa a jëlee ba pare mu jël la ca des lépp su fekkee kuy jël newut fa moom kenn mu jël lépp yóbbu ko kenn du ko seddante ku dee tey bàyyi benn doom bu góor kese xamul miiras benn doom bu góor dong nga bàyyi bàyyi fi lu mat ñaari milliards yow amoo jabar amoo baay amoo yaay amoo doom bu jigéen benn doom bu góor kese nga bàyyi sa doom bu góor ba moo jël sa alal ji lépp du ko séddoo kenn moom kenn mu jeex noonu tamit demeet bu dee woon bàyyiwul dul benn mbokk kese mu mbokk ak rek bàyyi mbaa ñu bokk bàyyi mbaa ab bàyyi tëxam bàyyi bàyyi tëxam bu bokk ak baayam ndey ak baay mbaa mu bokk ak moom baay wala doomi mbokk wala doomi baay taxaw yu mel noonu kese ñoo fa ñoom kenn jël sa milliards yi dem kon nit ku nekk war nay bàyyi xel ñam bokk ak war nay bàyyi xel ñam dëkk ngir sóoraale ñaar man ngaa sóoraale boo dee kii nga bokkoon di ko noonu mën naa bokk ca ña lay sang bu ca bokkut mën naa bokk ci ña lay seede bu ca bokkut mën naa bokk ci ñay xenu sa jaag ba mbaa ñay gas pax ñay gas pax ma mbaa ñay suul moo tax kon koo bokk ak jubóol ak moom koo xamanteeg fexeel nga xamante moo xam lante gu rafet xamoo kuy téye sa jaag bi ëllëg di xam xamoo ku lay gasal pax mi di xamoo ki lay suulal di waaye tamit koo bokk ak ci njiima lim jéemee la jubóog moom xamoo sa alal ji boo dee ku koy doonam déet bari na koy soxoree sa alal bañ ko cee may tabaarakallaahu nga dee yàlla jox ko ko te doo ci man dara moo tax kon lii yàlla rek ko ñeme nit nekk feek mbokk mi jubóowuñu mu dee amul ku ko donn yàlla jël xalal jël lépp donn ko ko jox ko ko bu ko yonent bi defoon gaa yi jël xet de ñi jël jaasi ya de su ko defee tamit nit ki nekk fi jubawut ak bàyyi taxam bi dee xalal jël lépp yàlla jox ko bàyyi tax ba te mu ngi nii rakki baayam la mbaa magam ñu woon bu ko yonent bi séddale woon xet ya jug de nit ki dee bàyyiwul fi lu dul doomi mbokk mu jël xalal jëm jël lépp te mu bu ko bu ko musaana yónni sax du dem lu mu ko sant du dem nanguwul koo demal tool bu ko yónnee du dem du ko nuyu faalewut ko xalalam ji lépp yàlla jox ko ko kon lii yàlla dong moo ko ñemee moom mi nga xam ne mooy rabbul isati wal jabaroot te mu ne bu koy séddalee nam demee dong la koy defee kon wax naa la xaaj bi donn ci asable su ko defee ñooy ñoo xam ne suñ fa neexee jël lépp buñ fa neexee keneen ñi xaar ba ñooñ jël la ca des ñoom ñi door koo jël ñetteelu xaaj bi nag mooy ñoo xam ne léeg-léeg ñi doonu cër nga jox leen seen cër ñi dem léegi léeg ñu doon ci xasable ñoom saxuñ dañuy varier rek tey ñi mel nii xëlëg ñu mel na na ñooña ñaar rekk lañ mooy baay ak maam maam ju góor maam ju góor gi jur baay ak baay ak boppam ñoom ñaar ñile ku cay dem bay donnu sa doom ji mbaa maam di sa sëtam bile te fe moom kon su boobaa mën naa jël sudusam ba taxaw fale bu de bu desee mu boole kook mbir ya dem baay ji tamit comme doom ju jigéen am mën naa jël sudus ba taxaw fale bu ñooñ bu bu bu yaay bu doom ja jëlee yaay ja jël tabaarakallaahu euh, euh, jabar ja jël mu des mu boole ko sudusam ba yóbbu lépp ah léegi-léegi nag ñoom dañ leen di jox benn cër rek ñu dem mooy ne bu ñu fi dajeeg doom ju góor maam mi bu fi dajeeg sët bu góor na jël sudusam ba dem dara du des wóor na ko góor gee tax baay mi day donn ànd ak kamay donn xam na doom ju góor waaye waaye na jël sudusam ba ta ñibbi dara du des waaye nag ka muy donn su fekkee góo doomam ji muy donn doomam ju jigéen ju dee la mu ngi mel tey nit ko amoon doom ju jigéen dugal ko ci néegam sëy yàlla dogal mu dee yow yaay baayam far forsu nga donn waaye du yow rek di jëkkëram ji nga mayoon ko dafa koy doon mënoo ci dara su fekkee xamoon na fa doom yu jigéen doom jigéen dañ koy doon mënoo ci dara su fekkee xamoon na fa doom ju góor doom yu góor yi dañuy donn waaye ñoo ñaa koy donn su fekkee ne nag doom yu jigéen ñi kese la bàyyi ak jëkkër nañu bàyyi jëkkër ja jox ko cëram ba waxoon naa la ko doom xam na ruboox lay donn doom yu jigéen ya xumb nañ ñaata lañ ñaar jëm kaw jox leen sulusaani ba tañ ñoom tamit ñi dem ah bàyyi moomu jox ko sulusam bi mu boole ko xaar bu dara desee mu boole ko lépp yóbbu ko euh, mënoo ca dara kon ñaar ñii rek ñooy ñoo xam ne léeg-léeg ñi donnu ci cër léeg-léeg ñi donnu ci asable léeg-léeg ñi jël cër ba pare toog xaar kon ñooñu la mu des nag ñeenteelu xaaj ba mooy ñoo xam ne dañuy donnu ci cër léeg-léeg ñi donnu ci asable waaye nag du duñ duñ duñ boole ñaar yi nag xam nga ñee dañ koy dañ koo boole ñi ma la njëkk a tudd dañ koo boole muy baay ak maam mën nañoo doonu cër ba pare toog xaar boole cër baag li des léegi-léegi ñi doonu cër ba rek dem léegi léeg sax nga bàyyi leen rek nga jël li des dem waaye nag ki nga xam ne moom day doonu cër ba pare ca lay xem wala mu doonu li des dem kooku ñeent rek la te ñoom ñeent ñëpp tamit jigéen lañ jigéen ña mooy kan mooy doom bu jigéen boo jur ki sa ndigg wala sët bu jigéen bu bàyyi ko ci doom ju góor ah kenn la ñaar la ñett lañ bari nañ lu mu bari bëri wala mbokk moo bokk ak ndey ak baay ak muy kenn mbaa muy ñaar luñ bëri bëri wala ak kay mbokk moo bokk ak baay muy kenn mbaa muy ñaar ak luñ bëri bëri xam nga tey nit ki bu dee woon tey bàyyi fi ñile lu mu fi bàyyi doom bu jigéen la fi bàyyi ak mbokk doom bu jigéen la fi bàyyi kese ci ndiggam ak mbokk mu mu bokk ak tabaarakallaahu ndey ak baay ñoom ñaar rek la fi bàyyi te ñoom ñëpp jigéen lañ jëlal nisif ba tabaarakallaahu nga jox ko euh, mbokk ma nga jox ko maanaam nga jox ko euh, doom ja la ca des nga jox ko mbokk ma naka noonu tamit bu fekkoon ne sët bu jigéen la fi bàyyi bàyyi ko ci doom ju góor ak mbokk moo xam ci wàllu ndey mbaa ci wàllu baay tamit ngay jox kële muy euh, sët ba wala doom ja la ca nga jox ko mbokk ma moo tax fii sax bu fekkoon tey mbokk ci baay dafa ñëw di góor ne ah, ñu ne ah lu ñu ne ah, moom de bàyyi na doom ju jigéen en même temps bàyyi na fi tamit mbokk mu jigéen mu mbokk ak baay wala mu bokk moom ndey ak baay waaye bàyyi na fi tamit meneen mbokk moo xam ne baay rek lañ bokk te muy góor. hee mbokk mu góor moom dañu ko wax na toppal fële yow doo xam dara mbokk mu jigéen mi bokk ak moom ndey ak baay moo la teree xam ndax kii da koo asable wa ulayaahunna mislal jaddi asabata oxra yey ni te basar waj sa ni xalalaa loolu la suñ góor ga waxoon ndeysaan suñ daara Aliou Sakho mu ne kon ñaar ñu njëkk ña ñaar ñu njëkk ña buñ ko waxee mooy al bintu ak bintul ibni ñoom ñaar fu ñu dajeek al uxtu ashaqiqa mbaa mu dajeeg uxtu abi dañ leen di comme ni maam bu dajee woon ñoom noonu leen di moo tax mu ne wa ulayahunna mislal jaddi asabata uxrayay ni tabassar wajtanib xalala kon ñeent ñaangoog ca xaaj ya ñay doonu ca cër waxoon naa la ko bi may ubbi waxtaan wi wax la timit ñay doonu ci asable rek di juróom-ñaar ak ñi nga xam ne dañuy donn tabaarakallaahu ci euh, ci ci asable di fukk ñaar ak ñi nga xam ne dañuy donn ci tabaarakallaahu cër di juróom-ñaar ak ñi nga xam ne dañuy donn ci euh, léeg-léeg mën nañoo donn ci asable léeg-léeg ñi donn ci cër léeg-léeg ñi boole ñaar yëpp waxoon naa la ko muy maam ak baay ak ñi nga xam ne ñoom ci xasable dong lañ mën a donn euh, maanaam wala ñu donn ci ci rek maanaam euh, ñu waxoon naa la ko waaye duñ leen mën a boole benn rek lañ ci mën a jël benn ngi jël xasable ba taxaw wala ñu toog donn cër ba dem kooku ñeent la mooy bintu bintu sulbi ak bintul ibni al uxtu shaqiqa al uxtu lil abi ñi rek la su ko defee kon nag ndono gaa ak cër ca juróom-benn cër yi yàlla séddaleeg ña koy donn ndono gaa ngóog ca ga fukk ñaar ña koy def ndono gaa ci ñi nga xam ne ñoom mënuñoo doon ci asableeg cër dong lañ mën a xam ci juróom-ñaar ña koy def ndono gaa ngóog ci ñi nga xam ne léeg-léeg ñu doon ci asable léeg-léeg ñu doon ci cër mën nañ leen a boole sax ca ñaar ña ca maam jaag baay ja ah ndono gaa ngoog ci ñi nga xam ne mënuñoo boole ñaar ñi mais mën nañ caa jël benn benn ñu jël xasable dem walla ñu toog xaar mu ñu jël ñu jël cër dem waaye mënuñoo boole xasableeg cër ñeent lañ muy doom ju jigéen ju sa ndigg ak sët bu jigéen bu bàyyi ko ci doom ju góor ak mbokk mu jigéen moo bokk ak ndey ak baay ak mbokk mu góor moo bokk ak baay xam nga ni li yàlla doo nga ko ñemee ñi ma la wax ni tey déggoo ci bàjjan bi bàjjan bi tey wax naa la bàyyi tax bi waaye déggoo bàjjan bi nit ki dee bàyyi fi bàjjan ji bàyyi fi bàyyi tax gi te ñoom ñi le wax dëgg yàlla bàyyee leen boole de ñoo bokk fuñ soqee koo de yàlla jël xarala ja jox ko bàyyi tëx ba bàjjan ba ne man nag ñu ne ko doo xam dara mu jël bale ga ci koo jëm xanaa ci yàlla bu ko yàlla séddlutoon mu jël bale gi de lum ca man dara nga nekk fii di ki dee bàyyi fi mbokk mu jigéen mu mbokk ak ndey ak baay ak doom bu jigéen bàyyi fi mbokk mu góor mu mbokk ak baay tabaarakallaahu yàlla jël xalal ji jox leen ko ñoom ñaar muy mbokk mu jigéen ma mbokk ak ndey ak baay ak doom ju jigéen ja wala sët bu jigéen ba ba nga xam ne doom ju doom ju góor a ko jur wala doom ju jigéen ja ànd ak mbokk ma ca wàllu baay rekk jël xalal ja moom may jigéen mbokk ma ca wàll baay euh, nday moom taxaw fale te fekk ñoo bokk baay ta muy góor ne man kat maa kii lu tax du ma jonne xalal te ma doon góor maa ko doon jàppale ci machine yi léeg ma lebal ko yàlla na ko toppal file ma bëgg a jël seen mëñu yàlla ne ko ci koo jëm dama ne lii yàlla rek ko ñemee miiraasa ngoog ak la ca xaju tuddal naa la ko ca cër ya tuddal naa la tuddal naa la ko ca boole ñaar ya tuddal naa la ko ca ñi nga xam ne benn ba dong lañ mën a jël waaye mënuñoo boole ñaar ya xam naa nag boo ma toppee suba ci waxtu wii ma sof ak yow li ma sosoon ak yow xasab moomu ma la doon tuddal mooy lan xasab lem moomu lu fu ko alquran tudd cosaanal baat ba lu muy tekki ci luxa cosaanal baat bi lu muy tekki maanaam tamit ci istilaahu ulamaawu miraas loolu xam naa ne boo ma toppee suba ci waxtu wi ma sof ak yow mu war a nekk tey ma doon suñ ñeenteeli jotaay ci miraas boo ma toppee suba nag ma sof ak ki ci juróomeeli jotaay bi ci miraas buntu darsu ba mooy nekk al irsu bi taasibi taasib nag mooy lan luxatan taasib mooy lan maanaam istilaahan boo ma toppee suba ma sof ak yow ci loolu ma sosoon ak yow insha allahu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu